ak cant la cant googee nag la si mu Abdoulaye Fall mi nga xam ne moo xam biir xam biti fees dal ak taalibe fees dal sa borom fees dal maam si Fall sa borom wuyu ko nag na ko yaat yaatal yaatal cant googee moo tax nag mu santal maam Seynabou Ndiaye maam Diarra Bousso kon nag sëñ bi nee na mi ngi ñaan ñu egg ci ak jàmm doon fukk fan ak benn ci wetuwaay bi nekk doon samedi ji di samedi ji ñu ji dimb ji su dellusee lañ koy def fi Touba jant Mawa. bis bii nag sëriñ baa ngi ci woo góor di ci woo jigéen di ci woo mag ak ndaw di ci woo nag bépp daayira boo xamee ni yaa ngi ci biir Touba sëriñ baa ngi la ciy woo daayira boo xamee ni yaa ngi ci biti yëpp ba ci piccim réew sëriñ baa ngi la ciy woo di ci woo nag. kii nga xam ne tey moom la sama borom dogal tey mu nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah muy Serigne Youssou Diop Serigne baa ngi ko ci woo ak waa Hizbut Tarqiyyah yëpp di ci woo kuréelu Hizbut Tarqiyyah yëpp Serigne baa ngi leen di woo ci bis bii bis bii nag ñoo ngi ñaan ñu yegg caa jàmm. maa ngi ñaan ñëpp lu ci waay mën ku jege ku sori lu ci waay mën nga def ko ci bis bi ndax sëñ Mame Abdoulaye Fall suñ doon jéem di ko fay sax duñ ko mën ndax loo yëkkati ba bëgg ko koo sante lay doon. ñu ngi siyaar ñëpp te ñaan sëriñ bi doolu ñoo taxaw. mboolem koo xam ne danga ngaa war ab daayira maam Seynabou Ndiaye ñu ngi lay soññ ci liggéey bii nga xam ne maam mu Ndiaye ji moo ko taxoon a jóg fu waay mën a nekk nag bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn région boo mën di nekk rek ci quatorze régions yi ñoo ngi lay woo waaye nag di soññaat tamit waa daayira bi nga xam ne ñoo féete tubaa di xidmatul Mokhtar bu Cheikh Moudou Abdoulaye Fall Ndar nga xam ne sëriñ bi moo tànnoon tur woowu tudd la ko boppam ñu ci doxal jëwriñ ji nag nekk Cheikh Ibrahima Fall Cameroun daa yëmbut waaye mooy jëwriñ yi ñu toftal ñu ci ginnaawam ñu ànd ak ñoom liggéey bi kon nag ñoo ngi ci soññee bu baax di soññee ci carte Maam mu Ndiaye yi nga xam ne moo doon yor dëgg-dëgg liggéey bi daayira bi nag maanaam ndox ci da ci am solo lool ndax mboolem li nga xam ne maanaam mooy ëpp solo ci màggal gi daayira bee koy def kon nag ñu ngi ci soññi ñëpp. bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn bu ñu fàtte tamit di ñaan bu baax suñu jàmbaar ji nga xam ne moo taxawaloon liggéey bii muy Cheikh Modou mu Fall Djili te ñu gën koo xam ci Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar maa ngi yalwaan képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu nga ñaanal ko suñu borom defal koy tawféex yokk ay leeram. nee na nag mu ngi wëlbati ko xam la moom bis bii day moo ci gën a fegg. dangeen ko koo jiital sëñ Mourou Abdoulaye jiite ko mën ci seen kanam rek waaye xam na ne lépp lu ciy dox rek neen mi ko ànd ak taalib yi ànd ko bokk yi ànd ko bokk jullit yi kon nag nee na ngeen ñaanal ko te jàppale ko ba li mu yéenee ci way juróom ba ci bis bii ni mu ko bëgg woon sama borom defal ko ci lu kawe njortam ñu ngi ñaan nag sama borom yóbbu ñu ci bisimilah rahmaani rahim àggal ko ci alhamdulilahi rabil alamin te ñu làq ci ngërëmul maam Cheikh Ibrahima Fall làq ci ngërëmul Serigne Touba ndax maam Serigne Ndiaye moom ku koy santal soxna jaara ngërëm yi dana bari ndax soxna maam Serigne Ndiaye boo santee soxna euh, boo ko santalee soxna jaara soxna jaara ngërëm la dana dem ba ca Serigne Touba Serigne Touba nag lool tàbbi ci loxoom ak Cheikh Ibra loolu da ko bëggee woon noonu ko koy amee kon nag Serigne baa ngi soññi taalibe yëpp soññi bokk yëpp soññi bokk jullit yëpp soññi bokki murid yëpp. waa ahlu Baye Fall waa Sikurulaay Baye Fall sëriñ Cheikh Bintou Fall ne tàmbalee Mbacke ba Touba mi ngi leen koy fàttali sëriñ Cheikh ndooy ak ñu aju ci moom ñëpp rek nee na mi ngi leen di fàttali bis bii xam ne bi seen bisa ñu teel a waaj te ñëw ànd ak moom ci bis bi ñu fas yéenee santale soxna maam Seynabou Ndiaye soxna maam bu so neen mu ngi ñaan nag barki maam Cheikh Ibrahima Fall jataay bi yàlla bu mu toog mujj jataay yàlla na ko yàgg taxawee. te ñu ànd koog moom te yàgg si taxawu liggéey bi ñu yàgg ci ginnaawam yàgg ko ànd ak moom di ko ñaanal bu baax a baax a baax taxawaay bi suñu borom dëral ko yàggal ko ak mboolem njabootu mu Modou Abdoulaye ak mboolem taalibe yi ak mboolem murid ak mboolem jullit yi kàddu yooyu la waxoon naa ko jottali bokki taalibe yi.